asiru malaraayi nasiru wasanaytaani munakasiru asiru malaraayi nasiru ami indallah yawi salmadaa billahi mina shaytani rajim uh, wa inni u'idhu bika wa dhurriyyataha mina shaytani rajim rabbi yaa ngi may laaj laaj bu ma neex laaj bu am solo muy bés bi nga xamante ni moom la ñu tuddee le 18 safar ñu di ko màggal Cheikh Modou Bamba Xaadim Rasul kon boo ma laajee ban yëg-yëg laa am boo xoolee mbooloo mi fi teew rek di nga xam ni yëg-yëg mënta ñàkk ci doomu aadama ndax mel na ni sëriñ bi bi muy génn bis boobu nga xam ne ci lay wax ne xarajtu yow ma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fii sari safar bés la woon boo xamante ni bésu mbégte la woon koo xam ne day jóg ngir liggéeyal suñu borom suñu borom wan koom lépp lu mu ko war a fayee kon yaakaar naa yëg-yëg boobu képp kuy jullit te bokk ci suñu borom di wax ne yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa kunu ma saadiqina war ngaa xam ne Sëriñ Tuubaa suñu borom defal na ko lépp lu mu bëgg nga yëg ko ak nga ñàkk ko yëg faaw mu am sëñ bi mel ni bis bi dafa am no xamne ne nii noonu la bi santane ñu santale ko boromam ci jaamu yàlla ak bernde lool loo ñu ci yaatalal tuti jeureuf jërëjëf dafa melni magal gi li taxone Cheikh Ahmadou Bamba lu sol wote ko dafa amone fum ko tek amone ci mbég mo xamne dafa dox digeunte mak suñu boromam ndax bi wax ne ila yaqad allah ma lam yakuni wala yakun abadan lil mulkin suñu borom defal na lo xamne musu ko defal mindeef te do ko defal mbindeef àdduna ak alaaxira bari na ay daraja yi ko suñ borom jox waye taxul won mu bind beuyit bobu kon yaakaar naa suñ demee ba suñ borom toll ci war koo fay mu wax doomu aadama yi ak képp ku yul ne bés bi bés lu delsee na ma ci santale yàlla suñ borom ci jàng alxuraan ci jàng xasida ak bernde kon day mel ne loolu bokk na ci li gën a am solo ci diine lislaam sëriñ bi. bu mel ni itam gis nañ mbooloo bi macha allah bàyyeeku nañu fu nekk eh, yaram daw na. mel na ni daal nit ñi ak euh, lu jamono xat-xat lu jamono métti métti day mel ni chaque année màggal gi day gën a yokk murit dañu gën a woy wuy si ban jàngat nga am ci loolu. waaw ah, jërëjëf jëriñ loolu mënut a ñàkk ndax suñ Tuubaa moo ko ñaanoon suñu borom yaa rabbi ij'al muridina maa fii xisnika wa xasiru sam laaj maa nee na suñu aaral ma mbindee aaral ma ñi sama ñoñ te def leen ñu nekk benn kon yaakaar naa tey bu ñu xoolee li wër jumaa ji tey ak li na ci biti ak li na ci yoon bi war nañoo mën a xam ne sëñ Tuubaa lam ñaanoon suñu borom suñu borom nangul na ko ko mooy lan mooy womatal ma doomu aadama yi tax wan leen li nekk ci man sama digganteeg yonent bi sallallahu alayhi te xam ne man yërmande kese laa te yërmande googu da koo donn ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yonent sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ne innama ana rahmatun muhdaatun googu suñu borom da koo sottiwaat ci xéwlu Serigne Touba Khadim Rasoul boo doon joxe tey benn soññe wala benn yebbal ñeel mboolem murit yi lan nga leen di wax waaw xanaa di fàttalikuwaat rek soññ bi nga xam ne Serigne Touba Xaadimu Rasuul soññ nañu ko ci tasawir sixaar ñun ndaw ñi tey boo xoolee tey population bi li ci ëpp tey ndaw ñi la te Serigne Touba am na xasida goo xam moom la ñu tuddee tasawir sixaar daf ko def ngir tàggat ci ndaw ñi daf ko def ngir jaarale ci ndaw ñi mu ne yaa ayyuhal sibyaanu laa tastaxilu anil hudaa bil ulumi fastaxilu bil hifzi wattani bu ma jaal sa saxaawa kon day mel ni dañoo war a amaat ak yeesal suñu diggante ak suñu borom xoolaat ci jëmm ji nga xam ne mooy sëriñ Mountakha moom sëriñ Bassirou Mbacké ni mu oyofee ni mu ñuy jàngalee ci ak taalibe te taalibe googu noonu la ko noonu la ko toppee woon ay magam ba tey jii suñu borom def muy sëriñ Touba Xaadimu Rasuul kon loolu liñ ci mën a jàngee rek mooy nañu fexe ba sax ci ndigal bàyyi ay tere ndax sëriñ Touba nee na isal muridu la yuridu abada xaydala rahmaanu xaysu xasida ab murid lenn lu muy bëggal boppam lu ko sëriñ bu kon lépp lu ñu def lu lu ñu sëriñ bu bëggal rek jëriñ wat nañ ndigal li nga xam ne sëriñ Touba joxoon nañu ko jërëjëf. waaw bisimilah sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la tur bi naka la. maa ngi leen de delloo nuyu di leen maa ngi tudd Serigne Mballo Niang dëkk euh, Kaolack. tey yaa ngi ci Touba ci yor-yoru màggal lan nga yég tey jamono yi. waaw yëg euh, mbégte mu rëy ndax mbégte mi mooy mbégtem lislaam la ndax bis bi mooy bis bi lislaam gën a rëy li ndax Seyxul Xadim bi muy génn li ko taxoon a jóg mooy defaru xeet wi. sababu xaybati an allaha arada an anaala minhu jaaha wa nekkoon na chafin li xaw mi te nekkoon na fi daw mi bi muy laxasaayoo di bàyyi njabootam di bàyyi ay daaraam di bàyyi léppam daa bëgg bu ëllëg yowmul xiyaamee bu ñëpp te kenn mu suñu bu yàlla joxee ndigal yonent bi mu ràmm yonent bi joxañ ay saxaabaam ñu ràmm bu joxañee sëñ Tuubaa balaa na bërët joxañ waa këram ñu ràmm lolé nak li ko koy may moy liggéey bu reub tolu ni mu daal jaayante ak yàlla jaayante jaayanteeg yenontu bi waxne ikhrajuhu ila biladin na'iya wa nal fiha fawqa sambu ikhrajuhu ila biladin na'iya wa nal fiha fawqa sambu sunu borom génn na yóbbu ma ci réew yu sori ya dafa defal ma fa loo raw nag dégg kon loolu mbégte la moo xamante ni ñëpp képp koo xam ne sa xol mi ngi dund lislaam am nga fierté tey ci bis bii ndax bis bii kat bu amutoon loxo dem gémmiñ te du ànd ko ndax maam Moussa Ka daa wax ne bu dul koon ak dem gii olof nasaraanu te kon billaay ñëpp dem niiraanu ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dagg buur yi ak seefeek nasaraan yi ñu jaxasoo kàngam yi ak naar yi ñee defe xaadi ñi ànd ak naar yi yee doomi soxna daal sampi daara dongi ak jigéen ñi mel na saara sire mu ànd saara yéen di caawo ndax jaxasoo ba mbarafatu caawo kon bis bii mooy bis bi nga xamante ni moom la jaayante ak yàlla ak yonent bi ni mu ko misaale rek moom da koo misaal ne mi ngi mel ne damaa romb ku xeeñ ak gët mu jox ma loxo ma jox ko loxo mu rocc dem ma dem bi ma dikk bi ma dikkee ci mbooloo mi nag ñëpp daal di may song kenn ku nekk naa may ma gëtt may ma gëtt may ma gëtt sëñ Tuubaa ne ma leen aw ma gët wala ka ko yoroon gisatuma ko ne loolu du solution naa jóg bàyyi leen fi dem ak fu ma ko mën a jëlee ak lu mu sori sori ma fexe ba am ko indi ko bu ëllëgee ko ma ko laaj ma jox la ko loolu mooy liggéey mooy jaayante bi. waaw bis bi dafa woon. waaw bis bi ni ko sëñ Touba digle woon bi mu jógee ci géej gi 1902 la jógee Gabon 1903 mu dem Ardu Saalihin di gànnaar bi mu ñibbisee nag mu tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ndax. bi tukki bi jeexeet natt yu jeexutoon day def at mu nekk rek natt yi day ñëw ba bis bi nga xamante ni mooy fukki fan ak juróom-ñett sëriñ bi xool xool xool dara wàccu ci kawam yéegul dara mu xam ne ko natt yi jeex na mu daal di woo sëñ Balla Faali Jang ak sëñ Modjaw Paxa daal di yëkkati juróom-benni téeméer jox ko joxaat ko juróom-benni téeméer joxaat ko juróom-benni téeméer. ne ko Balla Faali mu ne ko Mbàkke mu ne ko Modou Diaw mu ne ko Mbàkke mu ne ko kuy ab seex ci aju ci man nang ma ko waxal bés bi bésam tey bi di fukk fan ak juróom-ñett nañ ma sant la sama borom daana juróom-ñeenteer bu njëkk bi au lieu di sukkar ak café ak warga beneen xaaj bi ngeen fàggu ca ndawal beneen xaaj bi ngeen defare ko ndawal gi kon bis bi bernde la bernde na ñaar la bernde bakkan ak bernde ruux lii bernde ruux yi mooy alxuraan yi xasida yi du jolli salaatu ala nabi yi loolu mooy bernde ruu yi waaye nag bernde li jëm ci wàllu bakkan mooy kër goo dugg fàggu nañ ay bernde ci naan ak ci lekk ak ci ay tëdduwaay lépp ngir santale ko boromam ak cant nag feeg nuriwul ak yàq rek day daal di des. waaw loolu ñu koy dundal xel a ngi Tuubaa lan ñooñu it ñu ngi màggal màggal gi. ndax ñoom ña ngay màggal ndax maanaam màggali dafa am ca màggaloo màggal si ca màggaloo daa am màggaliwoo it màggal si woo ca màggal daa am ñoom nag màggal si wunu waaye ñu ngi màggal ndax màggale bi ko sëñ Touba diglee waxutoon ne c'est obligatoire ñëpp dajee tubaa daf nañ ko ci ak dundam ba mu génn àdduna ñu koy def jamono Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ba Cheikh saa bàyyee koo fi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bi mu toogee nag la gis ne comme ñu ngi liggéey jumaa ji ca seex yi bokkuñu ci gox yu ñu nekk mën na bis bi nga xam ne mooy bis bi sëñ Touba diglee woon sant ko ci boromam. nanu ko woote nu koy franchi Touba di ko fi dajee bu nu màggalee ba noppi ñëpp indi seen sas si jumaa ji ñu waxtaanaat ci liggéey yoon wi soog a ñaan dem déwén loolu moo tax ñu koy dajee waaye fu waay nekk rek man nga koo màggal fa nga ne am ci ngërëmu seen Touba mel na yaa ngi teew Touba loolu mooy wax ji kon ñu ngi leen sant bu baax te di leen di gërëm di leen di ñaanal wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay ziar jëwriñ tur bi naka la. Saliou Seydi. Serigne Saliou fan nga bàyyee ko ñëw màggal si. maa ngi bàyyee ko ba Yoff ñëw màggal si. ñaata yoon yaa ngi màggal si Touba wala yàgg na. depuis 2000. Ah. l'an 2000. tey màggal gi ñu ngi ci yor-yor bi ci dëgg dëgg euh, heure bi nga xam ne nii ci la Serigne bi euh, maanaam ci heure bi nga xam ne nii ci la ñuy yëg dëgg dëgg màggal gi tey mën nga ñëw wax lan nga yëg instant bi. ah li ma yëg mooy sentiment de prouesse sentiment de valeur sentiment boo xam ne ne foo ko natt wees na ko. ndax kii nga xam ne ne moo waral lii liggéey bu mu liggéey buñ ko delloo njëkkal mooy ne dañ ko santal yàlla buñ ko delloo njëkkal mooy ne dañ koy santal ki nga xam ne ne moom la bëgg ci xolam muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko delloo njëkkal mooy ne waruñu fi def lenn lenn lenn mooy nduróog caaxaan suba ba ngoon liñ fi war a def mooy jaamu yàlla jaamu yàlla kese jàng alxuraan. jang khasida wirde lu way mën def si zikr nako def suba ba jant saw te jublu it si bernay ndax lolu moy xoromu magal ci xamna len ci yok moy jamono yi wa diaspora bi eh, ak ñi ne ci rew mi ñu ci ñew ñu way ñu ñuy ci internet bi ban message nga len di lancé par rapport ak magal gi fi ci Touba. waw eh, xam nga événement mom bu xewé sa ginnaw surtout mu lo xamne ne dang ko tam téwé do def lulul eh, dina day metti wa ta ñun de eh, vraiment ñu ngi leen di ñewantal bu baaxa baax buñ sañoon ñuy tew bu baaxa baaxa baax waye de ñu nit dañuy gis si vidéo internet yi ne ñom bayiw ñuko ak ñun ñu ngi koy passer bu baax ñu ngi berde bu baax ñu ngi jang alcorane bu baax ñu ngi jang xasida bu baax ta affaire bi lool la laaj vraiment ñomit ñu ngi leen ci gërëm ndax dem nañ waye fatéw ñu nan lañ koy défé ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. وزمداني هنا كثير أسير